barke bi sëriñ Cheikh Fall Baye Góor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, mbokki àdduna ñoo ngi siyaare bu baax euh, kilifa yu tedd ñu bokkal jataay bi rawatina njabootuk sëñ Cheikh Fall Baye Góor gi ñu toogal ci bis bi nga xam ne mooy bisu fàttaliku sëriñ Njaga Jóob ñu jébal ko boromam barki mu di ko ñaanal tey ci àjjuma ju fii ci Parcelles Assainies àndoon ak njabootuk sëñ Cheikh Fall di soxna yi toog ci njiitul soxna euh, moomi Baye Góor ak soxna nday baayub góor ak soxna cubba baayub góor lañ toogal ci jotaay bi ak mboolem ñu àndal ah ñu fas yéene jox soxna moomi nag mu wax ci kàddu soxna yi eh, ci digganteem ak eh, sëriñ Njaga lim ci xam ci digganteem ak sëñ Cheikh Fall baayub góor way mu tedd bi ak eh, liggéey bi mu doon liggéeyal sëriñ Cheikh Fall baayub góor ba tey mu wuyu ko fee ca àjjana kon dañuy jox soxna moomi baayub góor mu nuyoo mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi sànn ci ay kàddu yu témoignage ci diggante sëñ Cheikh Fall baayub góor ak sëñ Njaga Jóob bisimilah. asalaamaaleykum ñun bokk taalibe yi ah, ñu ngi leen di nuyu te di leen sant ah, ñëw ci bisu sëñ Njaga Jóob mi nga xamante ne bi ba te ji nga ko xamee ak sëñ Cheikh Fall bu góor mu liggéeyal ko yàgg ak moom xam ci sëñ Cheikh Fall loo xamante ni ñu bari xamuñu ko ci te fortaatuwul ci sëñ Cheikh Fall mu wax ci sëñ Cheikh Fall la ko ko wax mu bëgg ko te yemalewu ko kenn bëgg lu xeetoog sëñ Cheikh Fall xam fu sëñ Cheikh Fall tegoon tànkam mu teg ko fa ah, nekk ci lu baax yaatal ko ci kër Cheikh rek gépp ba bisam bi egsi kon nag ñu ngi koy ñaanal ka mu doon liggéeyal di sëñ Cheikh bay Baye Góor yàlla na taseeg moom ndax jëf na ci jëf joo xamante ni ah, ñun njabootu sëñ xam nañ ko bu wér ah, rawatina man mii nga xamante ne sëñ Cheikh Xadim Serif Asana ma yor sëñ Jaga Diop day ñëw màggalu Tuubaa dafay indi ak ay jëmm